mu départoon daaw la 4 mu def daaw ñu jëkkoon a woote ci assemblée générale bi le 2 mois e mois 2017 moom lañ daje woon daaw yàlla dogal boobu ba léegi mbokk yi ak suñu mbokki jullit yëpp ànd nekk ci liggéey bi ak mbokki taalibe yi nekk ci réew mi yëpp ñëpp bokk ànd nekk ci liggéey bi loolu nag bi mu amee daaw ndaje bi ñu defoon buñ teelootu dama koy tënk rek mu gaaw ndax jataay bi ku ne xam ne xat na te fi mu toll nii wax de yàlla jataay bi yàgg na te dañu am leneen lu ci war a dolleeku incha allah daaw bu ñu dee xool bi ñu fi dajee daaw li fi dajee woon ci addiya biñ ko tënkee dafa nekkoon euh, vingt 728 loolu moo doon li nga xam ni daaw ci loolu lañ daje woon daaw ñu fi nekkee ci loolu lañ départoon euh, la ca dolleekoon moo nekkoon 2020 dollars biñ fi jógee la la 2 la 3 la 4 la 5. dañoo dem weccee ko ko dollar boobu ñoo ngi ko weccee ko ci ci dollar bi bi ñu ko weccee ko dollar moo ngi nekk mille 46 758 dollars li fi nekkoon lépp ci total waaw ñoo ngi ko weccee woo ñoo ngi ko bi ñu ko weccee ko loolu moo fi nekkoon ci dollar masse mille 2020 dollars mu nekk 48 778 dollars ci biir loolu dañoo continuer liggéey bi ci biir loolu dañoo continuer liggéey bi nag. waaye ba ñu ko révisé lépp ndax ku xam na ne fédération bi dafa am ay activités yoo xam ne moo koy doxal ndax day doxal kër Sëñ Touba gi di doxal social bi di doxal tournée xasida bi di doxal màggal Touba di doxal Muxaddamatul ma bi nga xam ni moo yoru liggéey yi Touba di doxal Touba ca kanam bi di doxal siyaar général kon fédération bi yooyu yooyu moom moom la tënk yooyu moo tënk fédération bi léegi nag yooyu benn bu ci ne def na ci ay jéego. ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moom la dajale lépp mu jëm ci kër Serigne Touba gi dafay nekk un million cent 186 mille 180 loolu dajale nañ ko ci at mi yëpp loo xam ne ci kër Serigne Touba gi la jëm social Abdourahmane Ndiaye bi ñu xoolee li nga xam ni moom la financé ci nit ñi maanaam mat na 300 mille pesos nga xam ni loolu moom la social bi dimbalee nit ñi bu ñu ko tënkee mat na lu mat fukki nit ak juróom-benn yoo xam ni kenn ku ne social bi teg na la loxo loolu bi ñu ko xaymaa 300 mille pesos tegal na ay ay weccet yooyu. am na benn surni xasida bu ñu taxawaloon boo xam ni ci eh, waa organisation ñoom it defal nañ taxaw bu rafet ñoom Bamba boobu eh, liñ fa dajale lépp nekkoon na quatre cent quatre mille pesos maanaam loolu mooy la nga xam ni moo fa rayoon ci xaalis lépp léegi bi ñu fa jógee màggal Touba bi ñu ko defee mooy le 9 novembre bii jàll dajale woon nañ ci huit cent vingt neuf mille trois cent soixante dix lépp mbokk taalibe yi ñoo ko dajale léegi bi ñu fa jógee mu xaddimatu xidma koroog daaw yónnee woon nañ fa eh, vingt mille huit cent mu ci Muxaddamatul ma bi eh, bi ñu fa jógee Touba ca kanam bi Pape Soro jiite doon ko leeral léegi moom tamit fédération bi eh, parce que maanaam yónnee na ci cent mille pesos mooy lim yor nii ak lim yónnee woon eh, bële jàll quarante quelques mille ak cinquante quelques mille yi loolu buñ ko xaymaa ay cent mille yu topp weccet léegi bi ñu fa jógee siyaar sénéral bi nga xam ne fédération bi woote woon na ko moom it dajale woon na ci trois cent soixante treize mille deux cent bi ñu ko weccee woon moo nekkoon vingt mille quatre cent dollars moo nekkoon vingt mille quatre cent dollars léegi loolu lépp bi ñu ko xaymaa nga xam ne loolu dafa nekk maanaam li nga xam ne fédération bi liggéey na ko ak mbokki taalib yi nekk ci réew mi yëpp ndax loolu dañuy gis ni kon ñëpp la ci seenu ñaq dem loolu bi ko dajee day nekk trois millions vingt trois millions deux cent treize mille cinq cent cinquante trois millions treize mille trois millions vingt et trois millions cent treize mille cinq cent cinquante loolu mooy somme nga xam ne at mi yëpp fédération laaj ci xaalis ci réew ak fa waaye ma ne ci réew mi rek maanaam loolu somme bii sa xaalis na xam ne dugg na ci somme bii somme boobu nag gis nga comme ni ñu ko defee ay pàcc juróomi pàcc yooyu nga xam moo tënk fédération bi ci yooyu lañ ko dugal ba tey jii bi ñuy ñëw fii tey ak yéen maanaam boobu bi ñuy ñëw fii tey ak yéen ñoo ngi leen andil ci xaalis 63000 pesos maanaam 63000 pesos la leen indi lépp dem na ci li lii dem na ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi lii siyaar général bi comme ni ma limee bàngaas yooyu noonu la demee kon tey jii bi ñu ñëw tey fii ci xaalis ñu fi indi maanaam moo ngi nekk 63000 pesos moom lañ indi léegi ma dem ci bilan liñ liñ dajale tey waaw bilan tey bi ñu ci suba incha allah bi ñu tàmbalee liggéey bi maanaam ak eh, fi ñu ko tëjee ñoom fi dajalee un million cent car un million cent quatre cent quatre mille trois cent soixante deux un million cent quatre mille trois cent soixante deux loolu mooy li nga xam ne tey pesos waaw tey mooy li nga xam ne moom la dajalee ci peso kon nag lool moom yaakaar naa ak cant la koo xam ni yaakaar naa ñëpp seen xol sedd na moom waaw ñëpp seen xol sedd na wax dëgg yàlla waaw tey daal wax dëgg yàlla jataayu tey dajale na un million cent quatre mille trois cent soixante deux waaw loo xam ni ci lañ si yéenee départ jëmale ko ci liggéeyu Kër Sëñ Tuubaa bi kon daal loolu lañ amoon ci lu leen du leeral di leen xam ne fédération bi ak mboo mboo yi ko séq yëpp ñi koy nekk ñoo ngi koy doxal seen kem kàttan fu waay nekk ak loo mën a dégg na ngeen xam ne fédération moom moo ngi dox te amul dara lu ci lënd tey jii mën nañoo bàyyi fii micro bi yéen ñëpp kenn ku ne loolu la jaaxal boo ko laajee mbokk yi tontu la ko ñoom ñëpp jàmbaar lan ñëw jëw li ni yaa ngi sant mboolem ñëpp si ñaa ko waa Bàmb moom xam naa seen xol daa sedd ba nga xam ne moom ñoom tey moom xam naa du reer sax yaa <laughs> ne jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu jërë ngeen koy waxee waaw góore murit waaw noonu rek la murit comme ni ko Amadou di Amadou Lawbe moom xanaa dafay sori allo. rek rek